alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. asalaamaaleykum jamiian. yéen sama mbokk yi jullit wala yéen samay doom sama doomu raxo samay soppee ñu booloo guddik tey gile naka ñu koy defe ci nëpp at di fàttaliku yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki xam ne mooy gën ci yàlla bind mooy sangab li yàlla bind mooy jaamam yàlla bi nga xam ne mboolem li yàlla bind mooy sa sang te moo la jot li yërmande yàlla yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne nit ak jinneel malaaka ñëpp ak ndundat ak jamaat ñëpp yàlla leen yërëmee ci jëmmam moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ne ko yónniwuma la lu may nga nekk yërmaande ñeel mboolem mbindeef yi te mbindeef yàlla rek ci génn bon képp ku yàlla bind yàlla yërëm na la te yërmaande jooja moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wax na ne man maay séddale yàlla nag mooy joxe yàlla rek ay joxe waaye lépp lu yàlla joxe yonent yàlla Muhammad mooy ki ko séddale moo sédd ñu jëkk ak ñu mujj moo may Ibrahim ñu gën ci yonent moo may Muusa moo may Isa ci may yàlla yi moo gën Ibrahima moo gën Muusa moo gën Isa mooy sangab mboolem doomi Aadama te loolu du tiitar sax ci moom am na tiitar bu ko gën a kowe tiitar ba ko gën a kowe mooy lan mooy mooy jaamam yàlla xaqan di sangab nag lépp lu dul yàlla su ñuy fàttaliku yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam daañu fàttaliku dundam jaamam yàlla boo xam ne suñ fàttalikoo dundam ñun ñëpp ñu war a takkaayaat war a laxasaaya laxasaay bu bees ndax mu nga juddu ca makka ba am ñeneen fukki at yàlla yónni ko ci mbooleem mbindeef yëpp te yàlla daawul yónnee noonu yonent bu ne dafa daa yónni ci saw nit rek moom ñu ne ko yónni nañ la ci nit ak jinne ñu ne ak malaaka sax yónni nañ ko sax ba ci boppam amana rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali di jotal li yàlla wàcce ci moom te mooy jotal nit ñi diine lislaam diine lislaam ki nga xam ne mooy xett li doomu aadama yëpp moo leen di goreel moo leen di may bëggante moo leen di may ñu xemoo nawleante kenn du gën kenn moo leen di may ñu nekkal yàlla ki nga xam ne moo leen bind bañ a nekkal keneen ku dut moom lislaam boobu ba ko yonentu indee te am ci Makka fukki at ak ñett waa Makka dëdd jox ko gannaaw réewi Paris ak Rome réewi yëpp ba Allemagne ba jege Paris ñëw ba Jafaar Tunis Maghreb te Sénégal ci tànk boobu lislaam dugg na baag fi ci réew yi ba nga xamee ne am na Seydina Omar ibn Khattab kaare àddina yëpp ko xaaj àddina ñeneen ci xaaj benn xaaj ba booba def na ko mu di jullit te atte lislaam di ko atte ñu nekk ci ron dara boobu lislaam dara mayu leen loolu lu mooy jàpp ci diine ji nga xam ne moom la yonent bi andi te lépp lu doomu aadama soxla mi ngi ci danga xam xamee nag ne jullit ñi yox yoxi nañ ci solo lislaam dellu gannaaw ba seen wareef yu bari ñu bàyyi ko yi ngeen doon tere yi ci bari diine ji nga xam ne moom la yonent bi indi te lépp lu doomu aadama soxla mu ngi ci ba nga xamee nag ne jullit ñi yox yoxi nañ ci solo lislaam dellu gannaaw ba seen wareef yu bari ñu bàyyi ko yi leen doon tere yi ci bari ñu togoo ko ca lay laf la rëccati ñu dellu gannaaw ba léegi ba léegi ñu ngi dellu gannaaw te dara duñu yóbbooti ca kanam lu mooy ñu def ni daa ñoo ne jiitu woon Omar ibn ñu ak ci moromam jàpp ci tiiram yàlla bi def ko mu di dustóor bi nga xam ne mooy xatte lépp lu yàlla waral ñu warlu ko lum daganal ñu daganal ko lum xaraamal ñu xaraamal ko lum santaane ñu def ko bu ñu xatte ñu xattee téere boobu yàlla wax na ci saaru maayit ci yetti ci mel ni xët rek ne ku xatte woowut li yàlla wàcce xéefar nga ku xatte woowut li yàlla xatte tooñkat nga ku xatte woowut li yàlla xatte faasiq nga yàtt yëpp yàlla wax na ko ci alxuraan léegi julli ñu tardé fi nañ day dem di wut yeneen xatte yoo xam ne ñu ngi koy jëlee Europe ak ak Roma ak Roumania ak lu kenn xamut koo xam ne yaa yaa ne ko moo xam ne ñëpp a ko soxla nga dem di xaaraani loo xam ne du dara loolu it beneen nattu la bu ne ci jullit ñi léegi fokk ñu xeewooti xam ne dara du leen jox doole lu may la joxoon doole seen ñu jëkk ña Omar ibnu Xataab xamul dara ci hisaab Omar ibnu xamul lu may lu yàlla waxal lu yonent bi wax waaye lu mu waral mu waral ko lu mu tere mu bàyyi ko lu mu daganal mu nangu ko ci la xam ne nga xam ne ci la noté àddina yëpp kon nag tey ñu ngi fàttaliku juddu waa jooju ak gaa yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom lu ñu war mooy ñu am kerta te ñu dellu dabaatal nañ dellu dabaatal nañ gëm yàlla mi nga xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkut bu yëpp demee moo fi def yàlla mi nga xam ne lum la jox kenn mënu la koo xañ lum la joxut kenn mënu la koo jox yàlla mi nga xam ne bu la yëkkatee kenn mënu suufeel bu la suufeelee kenn mënu laa yëkkati yàlla moomu nañ jàpp ci moom te doyloo ko nañ ñeneen doolooyee seen leneen ba amuñ soxla ci yàlla ñu nit nañ dooloo yàlla moomu ba bañ a soxla dara lu dul yàlla suñu ñaan nañ ñaan yàlla suñuy dimbaliku nañ dimbalikoo yàlla suñuy bëgg nañ bëgg yàlla suñuy ragal nañ ragal yàlla suñuy tameem nañ tameem yàlla yépp foofa nekk teraanga yàlla la ñaal ak ab yonentam ak ñu yàlla teraanga yàlla la ñaal ak ab yonentam ak ñu yàlla ku gëmut yàlla loo amee luy niru teraanga itam soo seetee rek gis toroxaane yi di nekk ca biir waaye kuy topp yàlla ragal yàlla teraanga yi joo xam ne ragal yàlla topp yàlla ko maye dara mën da niroo moom nañ delluwaat ci yàlla te nañ jàpp suñ diina nañ jàpp diina lislaam te diina ji du julli rek du xoor rek nañ julli nañ xoor nañ asaka nañu xaj naam waaye loolu doyut nañ liggéey itam bépp liggéey nañ takku xam-xam itam bépp xam-xam yonent wax na yàlla wax na yonent ne ko waxul rabbi zidni ilman yàlla digalul yonent mu sakku ndollat ci dara lu mooy ci xam-xam ndax xam-xam moom amul dayo xam-xam amul dayo lépp nag mi ngi ci alquran ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag sàggane loolu rek moo leen defal gannaaw nañ delluwaat jéem a dabaatal te dabaatal du am lu may ci sakku xam-xam xam-xam mooy xam arab lu ko ji nga xam ne ci la alquran wàcc ci la atte yi yëpp ci lañ ko lakk lu ko jooju bëri leen yéen ñëpp ba xam nga xamal ko seeni doom su ngeen bëggee yëkkatiku yëkkatiku nga xam ne jullit ñi moom lañ yëkkatiku woon te jamono yu jëkk da seen teraanga di yooyu ba léegi jàpp ci téere yàlla bi moo sos nguur gi nga xam moom la faysal di euh, bànneexoo ca Saudiya moom la Jamal Abdel Nasser amee ca Jumhuriya Arabiya al moom la Bourguiba ca Tunis moom la Hassan Sané amee ca Maghrib moom la Ahmad Mahjoub ca Soudan moom la Ahmad Sukarno ca gën a ca penku ca Indonesia ca Malaysia ca Pakistan dawla yooyu la yëpp lislaam a ko samp ci lislaam rek la dëhëre te dawla yooyu yëpp liñ nekk nekk ba xeex génn ci loxo yi ay ñi leen moomoon ñu ngi raglu ci kanam yi noon yi ba nga xam ne ñoo teree noon yu mag yi ci àddina ñoo leen teree nelaw mbuur dafa am ci lislaam naa leen ko wax yonent dafa wax ne dañ ma dimbalee ay ragal doxab weer yàlla wax ci alquran ne ko danaa sànni ay ragal ca xoli noon ya ragal yooyu yàlla doon dimbale yonent bi ba taxawal diine lislaam ndekete ba tey jógu fi ba léegi yàlla ngi def ragal yooyu ci lislaam jullit ñi fu ñu daje ak luñ tuuti tuuti ak luñ néew néew doole luñ ñàkk ñàkk xam-xam ak ci pexe xéefari yi ñoom nelawatuñ ngir ñoom ngir ragal leen ragal yooyu nga xam ne yàlla sànni na ko ci xoli ku duwut jullit ba léegi mi ngi ci ñoom ñuy ragal jullit ñi kon nag su fekkee ñu ngi ñuy ragal ñun duñ leen ragal yàlla moom moo dimbale yonentu loolu ma ne sa bu taxu suna ragal yooyu kon noonu faagaagal nañ jullit ñi bu yàgg ndax jullit ñi ak seen ñàkk xam-xam ak seen ñàkk ay jumtukaay seen ñàkk xalal ci li gën bari ak doole ji nga xam ne moom la yàlla jox ñu dul jullit ngir joy ko dàqe leen ko ah, su fekkoon ne ragal yooyu amut kon doole yi faagaagal nañ àddina bu yàgg naka leer su fekkoon ni doole ji nga xam ne Russie am na ko wala américain bu ko benn jullit amoon wan du lislaam du taxaw ci kaw suuf waaye ñoom ña ko amee ñemewu ñoo sax jullit ñi defe nañu ndax jullit ñaa ngi pare pour faagaagal leen ñoom nañ sant yàlla ci loolu mooy dëgg ci yàlla wax ne teraanga yàlla la ñeel yonent la ñeel ak ña gëm yàlla koo xam nag ne teraanga jooju xamul ci cët dafa fekk gëm yàlla gi nga woote dafee nekk dëgg nañu góorgóorlu nañ jàpp ci lii ñu jàpp moo gën lépp lu ñu mës a jàpp diine lislaam ñuy xeer yi nga xam ne ñoo gën ci mbooleem xeer yi ndax suñu yonente gën ci mbooleem yonente yi suñu téere gën ci mbooleem téere yi suñ diina gën ci mbooleem diine yi wala suñ diina rakay a sax lu dul moom du diina inna diina inda laahi lislaam lu dul lislaam du diine wa man yabtaxi xaara lislaami diinan falan yuqbala dara lu dul lislaam gannaaw bu yonent yàlla Muhammad feeñee ba tey képp kuy jaamu yàlla ci lu dul lislaam yàlla na ne du ko nangu te na ci ëllëg te ñooy perte ngay bokk kon nag beneen diine mënu fee nekk ak colonialiste yi ak seeni église ak seeni mission ak seen alal ji bëri ji ñuy tuur pour bëgg a taxawal diine ju dul lislaam dara la du jëriñ lislaam rek moo di lu du diine te yonent dëggal na ko ci hadisam bés na ne géñ naa ci jaame sama bakkan su fekkoon Muusa ibnu Imraan suñu wàcce ci moom Tawreet Isa ibnu Mariam suñu wàcce ci moom Linjiil gé ñu ngi dund tey bu ngeen leen toppee booy itam ngeen réer bu ngeen leen toppee booy ngeen texaari man maay soppeeb yàlla naka Ibrahima nekkoon xaritu yàlla diine jooju ku ko yàlla jox yonent boobu ku ko la jox te àdduna nekk fi amul solo di yóbbal bu néew topp mu jeex te kenn ba xel ci ñun ñàkk dee te wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamati te ñun duñ fayee ko fii mukk kër ga ñuy bañ a dem foofu rek la ñuy fayee ko kon kay nañu ut yóbbal lu bari te ñuy dox ci kaw suuf suñu feeg ñu ngi dund di jaamu yàlla ñu ngi ci lu baax waaye bu ñu yàlla jëlee itam ñu dem ci lu gën a baax adduna kafa la ci ku gëm yàlla aljanna la ci képp kuy wedd yàlla képp ku dee te xam ne yaa ngi gëm yàlla di topp yàlla da génn ci kaso dem ci sa banneex ñun ñi fi nekk di dund ci kaso lañ nekk te benn sëtu yonent sallallahu alayhi wa sallam mas naa war ci mbooloo moo xam ne gaar ga kenn mënu ko na nattale ci bari ali seydil abidin ki nga xam ne daana amee jamono majlisam ñeneen fukki junne daa yi ko xam ne muy wax dana ca daje ali seydil abidin moomu romb benn yowoot boo xam ne miskin la te dafa amee jàngoro ji ba dagg ba loxoom yépp dagg ba jeex ay tànkam dagg ba jeex ñu sànni ko ci santare mooy sën sagarumam teg ci xawraam rek la am benn dagitu mburu bu wow bu mu yëy amu ko ali seydil ami dina jullit bi romb ko ak dooleem jooju mu ne xool leen ma ko ñu ne ko yow ak bi lay xoo mu ne maanaam yàlla mi lu may defee mu ne ko xadis bi ma dégg la yonent ko wax laa lay laaj ndax dëgg la am de ndax moo ko wax mu ne lan mu ne yonent ñu ne yonent moo wax ne adduna kaso ci ku gëm yàlla te aljanna la ci xéefar mu ne ko waaw yonente ko mu ne ko yow mii yaa ne ci kaso man nii mën a jox aljanna mu ne ko waaw waaye toskare sa noonab yàlla bi duhut nii li nga toog la tekki lii nga gis ci man te na ngeen di julli ci moom ci biir loolu te dee leen ñaan yàlla seeni soxla ñaanal leen seen bopp ñaanal seen i wajut ñaanal seen mbooleem mbokk ñaanal mbooleem jullit ñi loolu mooy gàmmu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih لا إله إلا الله